inna lillahi wa inna ilayhi rajiun wa man yaxruj min beytihi muhaajiran ila allahi wa rasulihi summa yudriku mawtu faqad waqafa ajruhu allah inna allazina saarihu li xidmati falahum diyaara wastal jannati asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu surtout Sëriñ Habibullahi ak ci turu mboolem waa Touba ci kanam sëriñ Habib di yëkkati kàddu ci turu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi nekk sëriñ Touba moom mi nga xam ne liggéey bii nu nekk di ko liggéey moom moo nu koy liggéeyloo sun dogal mi dogal nag dogal ci ab dogalam tey jii am lu xew ci biir liggéey bi xew ci ñooñ liggéey bi di ay bokki taalibe yoo xam ne dañoo jugoon jaayante ak sëriñ Touba. ñëwoon ànd nag nun di liggéeyal sëriñ Touba yàlla dogalee nag nu ne ci liggéey ba sun borom mi nga xane lu am mooma te sañ te man tey def tey dindi te kenn suñu ne ko lu tax nga def mu def ci coobareem ak kattanam ak sañ-sañam jëfandikoo ci ay jaamam la ko ca soob te muy lum sañ te du tàggu kenn te waxoon na ko ba yàgg nag kullu nafsin saa'iqatul mawt allazi xalaqal mawta wal xayaata kon mbir la moo xam ne mu baaxoo am la dikkiin yi nag mooy wute ak saa yi dikk ak ni muy dikkee bi yàlla dogalee nag mu am ci takkusaan bi nuy woo Sëriñ Habibu nu bokk toog nu xamal ne nu am nañu yàlla wàcce ab dogal seen kaw booba sax xaj na dogalu faatu ak séegut waaye dogalu jëyee ak si na fan ko yëgee tàmbali di ca ñaan nis ku si la nu woo xamal nu la ca xew booba itam la nga xam ne moom la ab jaam man daal dinañ koy tàmbali def muy jug dem ci ki nga xam ne mooy sunu kilifa di Cheikh Mouhamadou Mountakha yëgal ko ko bii ko bi nu ko ko waxee lim njëkk a waxi mooy ñooñu dañoo saxit saxit mooy ku dee ci xarab lislaam googu kàddu rek doy na sëkk dañoo sax la wax joxe ak ñaan yóbbante nu ci seeni bokk ak ñaan yóbbante seeni bokk dalu xel yóbbante seen yóbbante nañu seen bokk massaw yóbba nañu seen seeni bokk am njaal ci kaw loolu nag sëriñ xëy bu ak waa Touba ca kanam gépp di ci yëkkati seen kàddu ginnaaw boo xamante ne ki moom liggéey bi moom dem nañ ko ba yëgal ko li xew ba noppi tubaa ci kanam di xam la ne li xew day moom yàlla suñu doom moo ko xewal te di ko xewal ci ku ne ku mu ci nun ci waxtu wam ko sàkkee ndax ku ne ba mu la bindee la la bindaale sab dikk kenn ku nekk bis nga fii nikk alhamdulilah bi alamin nag ñii seen bis dafa agsi waaye mu agsi ci agsi yéen wu taw feexe ak seen wu ànd ak ndimbalul yàlla ndax xëyal sëñ Tuubaa sa bakkan des ca mën su ta ëpp yaakaar am su am yaakaar ju ëpp fañ jëm kon mbir la mu diis mbir la mu bette mbir la mu mette waaye nag mu sante ko yàlla ndax kenn du wees sa bis suñ demee wutoon ci nii it danañ demee ci neneen waaye bisub dem moom genn du ko weesu li kulli ummatin ajal isa ja ajaluhum la yastaxiroona saatan wala yastaqdimuun kenn ku ne sëb dig du avance minute du retard minute waxtu wa dig ba agsi képp képp ca ngay faatu ku mu ci noonu rek loolu lay nikk kon ñoom seenu dig dafa teew alhamdulilah bi alamin nag ba mu teewee ci fekk leen ci loo xam ne mëneesuta faatu ci lu ko gën mëneesuta faatu ci lu ko ëpp yaakaar ko mëneesuta faatu ci lu gën liggéeyal sëñ kon ñi nga xam ne yàlla dogal lii mu dogal ci ñoom noon day ay jaam rek lan dañuy delloowaat lépp ci yàlla mooy li ma ubbee te suñu borom wax ne lu dal seen kaw na ngeen ko wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye nag laaye jooju ma ci teg nga ne suñu boroom daa wax ne képp ku génn sa kër dox wuti yàlla ak yonente bi di def loo xam ne yàlla képp a tax ak yonente bi ba faatu fekk la ca la nga bëggoon am nga ko ndax danga jot sab yoon sëriñ Tuubaa itam wax ni ne suñu boroom ñëpp ñu nga xam ne gaaw nañ buñ ma wootee di ma liggéey danañ gaaw jëm ca liggéey ba na nga leen defal ay kër yu bari ci digg àjjana kon nag ñii suñ xel dal na ci ñoom ndax kat ay jàmbaar lañu woon moo leen taxa seen seen bakkan des ca kon ñi nga xam ne ñooy seen wayjur ñu ngi leen di mastaw surtout sëñ Abibu ak Tuubaa kanam gépp di ànd ak ñoom tiis wi di leen xamal ne bay boo seen xel dal te seen njort rafet te xam ne liñ bëggoon ci seen doom yi de moom yàlla defal na leen ko ci ndax sëriñ bi moom képp ko yàlla booleeg moom am nga taw feex waaye liggéeyal sëñ Tuubaa nga ne ca biir liggéey ba sa bakkan des ca loolu moom ndimbalul yàlla moo koy maye taw feex ju kawe moo koy maye waaye yombul ñëpp kon ñoom gannaaw dañoo xëyaloon sëriñ Tuubaa yàlla suñ borom mi wàccee fekk leen wàccee leen ci toolu sëriñ Tuubaa ah ñooñu sant yàlla bu baax la def ci ñoom ñuy wax de xëy na dañ yàlla na sunu mujj rafet daal ba mel ne seenu mujj bakib sëriñ Tuubaa loolu rek lan ci mën a dolli waaye mujj rafet mënta weesu xaatoo bi ndax bari na lu ma koy wax ci bis boo xam ne dafa toog njëriñ ba guddi mu jekk-jekk génn waaxu ba ci ay armeel yu newoon ci ginnaaw mu taxaw ci fekk bi mu ne tëll bunt bi am na ko jox jox satale mu ŋàbb ko fekk mag ñi dañ daan def bu kenn day boof ci bunt ndax duñu xam bunt bu muy génne am ko mu jox satale gi waxu ko da di waax waaye mu topp ci satale gi ba mu dem ba wër armeel yi ba noppi taxaw ne ko ana kii kooku ku ñu wax suñu Omar Diba la mu ne ko mën a Omar Diba mu ne ko xanaa armeel yi moom ñi ñu fi suul kenn koo mas a liggéeyal wala kenn ku mas a liggéeyal ko mas a liggéeyal nekku fi hmm. armeel yi ñu fi suul xanaa kenn koo mas a liggéeyal wala ku mas a liggéeyal ko mas a liggéeyal nekku fi suñu amoo di ne ko ah loolu day mbàkke kumba sama mu a ko armeel yi de koo mas a liggéeyal nekku fi ku mas a liggéeyal ko mas a nekku fi ndax seen yuuxu yi moo taxoon mënatumaa nekk sama kër gi waaye bi ma fi tegee sama tànk lañ leen jégal armeel yi sëñ Amadou ba mu xëyee ñam ko laaj dañ ko ne ay séeréer yu tuubut lañ fa daan suul xamuñ jullit buñ fa mas a suul kooku nag kon ku ko nekk ci toolam ba faatu fekk la ja ah sam xel war naa dal sa sa njort war naa rafet seen i way seen xel seen xol war sedd ci li seen mujjug doom yi ndax bu ñu fi nekkoon nit kat xamul nu ñuy mujjee ak ñoom kon fii yàlla mujjee ñoom sëñ Tuubaa mujj fee ñoom ak mujj goo fen mënu ko weesu kon ñi ngi leen ci mastaw di ko bokk ak ñoom waaye di leen xamal ne na seen xel dal te seen njort rafet ndax ñaanu sëñ Muntaxa te ñaanal na leen seeral leen ne dañoo saxit te ku fi nekk sëñ Tuubaa moom lu mu wax yàlla fekk ko ca kon nag alhamdulilah bi alamin lañ ciy teg di leen masaw di leen xamal ne Tuubaa kanam fas na ko yéene ànd ak yéen ci lépp ànd ko ñi nga xam ne ñooy seen i mbokk ñooy seen i wëjju ñooy seen i jege ñaale Tuubaa kanam fas na yéene ànd taxawaay bépp taxaw leen taxawaay ya ca wax di xam le ne bii itam biñ koy def yàlla dogal na bi sëñ bi joxee ndigal daf noo boole woon ak suñ basum suñu Abdou a jaar fépp nga xamee ne yàlla dogal nañu agsi boo xam ne tëli la waa asawun ñoo baaxoo di ko gas duñ ko laal ñoom ñoo ko gas biñ ko gasee ba noppi ba xam ne liggéey bi daa war a wéy ñu war a liggéey bi ñëw nekk ca ci la dogal bi agsee waaye ñu xam ne dogal bu yàlla la waaye du càggante du càggante kenn ci ñi seq liggéey bi ab dogal nag moom faw bu jotee day agsi rek dogal moom faw mu dog yàlloon te xamees ko yàlla te ñàkk koo xam waaye bis bi moom fu agsi faaw nit nit ki dem loolu rek waaye loolu rek moom te suñ borom jaarale woon ko fii te nag leen a dimbali képp a tax nag ndax bu ñu nawtoon a faatoo ci tool bi sëñ Tuubaa kon loolu ñu xam le ne ak càggante wëralu ko ndax ay machine na ko doon gas te gas nañ ko gasin woo xam ne tegu na ca yoon wa xam ne moom la seen xam-xam laaj ñu woo koo def waaye nag yàlla mii dogal moom moo dikk ko dogalam buñ demutoon foofa it dem feneen nit demee na nu ne nit dem na ci lu ne nit teelu na fu na dem waaye dem ci daal dem goo xam ne fu mu demee ñu ne daa xëyoon ci toolu sëñ Tuubaa faatoo ci daal kooku dem moom yàlla na ko yàlla tawfeexi la tem yàgg fi yàgg leen ñaanal di masawu ñëpp di gërëm ñëpp di di jéggul